ay ca mbokk yi final individuel catégorie 100 kilos Abou Assef Diourbel mi ngi noonu mook El Hadj bu Dakar ndeysaan mbokk yi caatu Ayda abu Assef a ngi noonu arbitre baa ngi koy seet ndax pare na El Hadj Ndiaye nga ca biir géew ba xool nañ abu Assef ba pare xool nañ El Hadj Ndiaye ba pare ñoom ñaar ñi ngi noonu ci biir géew bi abu Assef El Hadj finaal final catégorie 100 drapeau chef de l'état édition 2024 fii ci Mbour Géej arbitre mi ngi leen di laaj ndax pare nañu laaj na leen ñoom ñaar El Hadj Ndiaye ñaan na Abu ñaan na arbitre soufflé na arrière génn seen diggante ñoom ñaar Diourbel Diourbel Thiès final final catégorie 100 Abu Asef wala Diourbel Dakar El Hadj Ndiaye Dakar la bindu. Abu Asef Diourbel ñoom ñaar daje léegi bàyyante Abu Asef Diourbel El Hadj Ndiaye ñoom ñaar ñi lawaato lewaatoo final catégorie 100 kilos El Hadj Ndiaye na ca suuf Abu Asef rasu ñoom ñaar ña ngay dëbbante naax ca kaw El Hadj Ndiaye ngay waaj a dem léegi waaye demul El Hadj Abu Asef El Hadj Abu Asef abu jël na tànk ba El jël na tànk ba El bañ a def deux pas de recul taxawaat attention ña ngay dëbbante naax abu asef El Hadj Ndiaye jàppante nañu ca kaw El fippu na nee na ko bëgguma loolu abu asef El Hadj Ndiaye catégorie 100 kilos jàppante nañu ca kaw ñoom ñaar Diourbel Dakar arbitre nee na ngeen bëre waay Abou Assef 100 kilos El Hadj Ndiaye 100 kilos Abou Assef Diourbel El Hadj Ndiaye Dakar final catégorie ay waay ñiy jaar sama kanam nan fi jóge attention arbitre nee na ngeen bëre laa ilaaha illallah oh abu mbaa doo jël avertissement arbitre baa ngi lay avertir verbalement attention abu asef El Hadj Ndiaye abu asef El Hadj Ndiaye jàppante nañu ca kaw foqantey baaram bàyyante waat Etienne Ngom sa maa ngi noonu abu asef bu jurbel El Hadj Ndiaye abu asef Dakar jurbel catégorie 100 kilo caatu ayda borom Joal Fadiouth abu asef attention abu jël na tànk ba xale bi bañ laa ilaaha lala elage actionné léegi actionné na léegi moom tamit abu asef elage njaay abu asef caatu ayda ndeysaan ñoom ñaar tegante nañu bopp abu kalna na bañ dañuy jéem a naxante ñoom ñaar ay technique seen lañu laa ilaaha illallah ña ngay dëbbante naax arbitre sifflé na arbitre sifflé na mi-temps mi nañu bëre nañu trois minutes mi-temps sans avertissement deuxième mi-temps Abou Assef El Ndiaye El a ngi noonu xool nañ ko ba pare mi ngi noonu di ñëw abu tamit xool nañ ko ba pare ñëw na arbitre baa ngay wax ak ñoom nee na leen bëre leen a Assef El jaay Ndiaye final catégorie 100 kilos arbitre ngay laaj ay sixième ndax pare nañu sifle na. ñu foqantey baaram tegante bopp Abou Assef El Hadj Ndiaye Abou El Hadj Ndiaye Ndiaye la ilaha illallah la doon jël abu jël na tànk ba Abou jël na tànk ba El Hadj mboot ko mu bañ El kal na ko mboot mboot day am wala lan mooy am Abou Assef El Hadj abu Abou Assef El Hadj Ndiaye Abou Assef aboo ngay takk oh El Hadj da ngay jël avertissement El Hadj da ngay jël avertissement. Elage jël na benn avertissement sifflé waat nañu diggante abu Assef ak Elage Ndiaye ña ngay tegante loxo ci bopp wala abon koy teg loxo ci bopp ak sone waat nañu ñoom ñaar jàppante ay technicien lañu ci kaw la ñuy bëre waaye ku ci nekk ci suuf la soxla dañoo bëgg a dafa mel ni. ñoom ñaar dañoo xamante nag abu day bëre ci suuf mais day bëre ci kaw mais ci suuf la soxla hélas day bëre ci kaw mais ci suuf la soxla tegante nañu bopp abu asef hélas njaay ndeysaan waaw waaw cey mbayang abu asef hélas njaay hélas a ngay actionné hélas a ngay actionné la ilaha illallah abu jël na hélas rasu Abu El Hadj Ndiaye Abu Asef El Hadj Ndiaye arbitre sifflé na arbitre sifflé na Abu jël na avertissement mais arbitre bi arbitre bi li muy arbitre bi li muy arbitre doy na waar trop avertissement boobu da jaaxal na ma man avertissement boobu jaaxal na ma de Abu Asef El Hadj Ndiaye ñoom ñaar ñi ngi tegante bopp jàppante. abu Assef El Hadj ñoom ñaar dañuy jéem a naxante abu Assef ak elaaj jaay Ndiaye coono ngi bëgg a feeñ ñoom ñaar xool leen seen biir yi li ñuy noyyi xoolal El Hadj li muy noyyi xoolal Abou li muy noyyi ndeysaan ci combat bi dafa bëgg a yàgg Abou puus. abu Assef El Hadj Ndiaye Abou El Hadj Abou El Hadj laa ilaaha illallah Abou daw na jël tànk bi léegi El bañ abu Assef El Hadj abu Abou Assef El Hadj Ndiaye Abou Assef Hadj Ndiaye Abou Assef El Hadj Ndiaye bàyyante waat nañu laa ilaaha illallah El Hadj jël na tànk ba El jël na tànk ba day jeex El Hadj jël na tànk ba day jeex wala du jeex Elaj takk na Elaj takk na xatar bi teg 16 Elaj takk na laa ilaaha illallah abu génne na tànk ba abu génne na tànk ba Elaj da ngay jéem a wër ndombo Elaj da ngay jéem a wër ndombo Elaj takk na laa ilaaha illallah lan moo xew lu xew Elaj daan na abu asef Elaj daan na abu asef Elaj daan na abu asef El Hadj daan na Abu Asef